yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan jamono ji nekk partout dans le monde rawatina waa diaspora bi ñu leen xamal gaar daar gaaw gaaw ngeen daw abonné fi ngeen xam ne moo di sunu TV waaye gannaaw loolu dañoo ñëw ci li ngeen xam ne moo di seen émission mag bi nga xam ne ñu ngi ko salon des VIP salon des VIP na boo ko déggee jàppal leen daanaan kulli fadele danañ la fekk ba sa biir kër toogandoog yow defandoo émission bi nga xam ne moom lañ salon de VIP di amee fi nga xam ne moo di sunu TV waaye du ma ci wéet benn yoon ndax dama ci ànd ak uh, sama rakk sama xarit sama doomu ndey muy la sista Adja bu Serigne ndax nee leen kat tungu ne du teew ñi nataal kon dañoo ñëw fii ci diwaanu Pikine dama koy daal di jox kàddu gi rek mu daal di nuyoo moom tamit ñu daal di wéyal mbaax daal di mbuux mbaax ak suñu gi nga xam ne moom lañ seet fi nga xam ne moo di ci diwaanu Pikine maaleykum mbokk yeeg xarit yu ñuy seetaan ci sunu TV ah, nee naa leen émission bu bees tàkk 2019 lu bees tàkk tàkk tàkk moo am tubarkal dañuy daal di yeesal rek mbir yi daal di koy def ba mu daal di neex ah salon des VIP daal tey daal moo moo ñëw fii ci pikin seet ci ndaanaan. man ajaa Saliou mu ànd ceeg sama góor sama càmmiñ sama xarit sama lonko ah DJ DJ Milk moom laa àndal fii ci Pikine ñu seet si ndaanaan ndaanaan ju mag daanaan joo xamante ne kenn du ko natable ci mim réew ndaanaan goo xamante ne bu yuuxoo rek nga xam ne ndaanaan wéy na macha allah léegi nag dañuy daal di bàyyi moom ci boppam mu daal di nuyoo ah as boobu dama lay daal di delloo nànk ah micro bi nga daal di yeesalaat nuyoo gi rek macha allah. comme ni ko sama rak sama rak bopp ji waxee moom Adja Saliou Adja mu Serigne Saliou ndax nee naa leen tungu ne du teew mukk ñuy nataal ñu ngi fiitee tey ci diwaanu Pikine tali bu mag ndax nee naa leen ku tudd Pikine bu mag tudd ndaanaan ci biir ndaanaan yi tudd kulli fadde lépp ndaanaan tax nee naa leen kat ka koy mën ak ka koy jéem duñ boon nit ñi ngi ci mbalax mi ñi ngi ci saraxulle bi ñi ngi ci alpulaar bi waaye kii dafa ñëw indi duruginu boppam mu di ndaanaan kulli fadili ba tax na gannaaw loolu moom kumba ah, ndax nee naa leen tey Pikine dara du yomb tey foo sànni maa tambu tooc kumba nuyu naa la bi mi asalaamaaleykum suñu tv naaɓe koyi calminama mi wimon debbo kumba debbo ɓundu kumba bannaɗo bobo malik si salmini suñu tv naaɓe calminama mi wimon assalamu aleyka moɗon kumba tamba koyi salminimon debbo ɓundu kumba bannaɗo bobo malik si debbo mo tambakunda boyngel bamba salminimon mi wimon salamu aley moɗon omar doro kume mi wima gara ela sumare mi salminima mi wima mariat gajo mi salminima mi salminimon nenalen fariyo ñalo geyna ko danjel ni fasonnario gori takkanañulen kumana wartenga war kumanultenga to guineyi nena pikin mo xewle Ndongo Lo la fekk baax Abou Cuba Lo la fekk baax daanaan yaa ngi Pikine nuyu naa leen waa Pikine nee naa leen nag dal leen jàmm ci Pikine dalal naa leen merci. Eh, macha allah chapala chapa dëgg saay kumba sa neex na ñu kon ko xam ci kumba Tamba macha allah voix bi voix d'or laa koy tuddee. sama yaram daal di daw ndax booy nee naa la ba amul ndeysaan rek googoy woy des na ko pikin man xale la lakkate ah ma ànd ak sama góor ah fii ci pikin non bu leen zappe toog leen xaar léegi léegi ñu ñëw incha allah ndax nee naa leen Kumba Tamba ngi nii toog di gone Pikine di doomu Pikine fekk baax Pikine nee naa leen la voix d'or a ngi nii toog waaye Kumba macha allah laf cat waaye Kumba bëggoon naa ñu xuus ci lu bari tey ndax nee naa la ku la fekk si ba war nañoo xuus ah waaye Kumba bëggoon nañoo xam kan mooy Kumba. waaw euh, Kumba euh, mu ngi tudd euh, Kumba Tamba juddoo fi ñuy naan Tambacounda màggee fi Dakar Dakaru jaay dakaaru Jar Diop màggee fi koñ bu ñuy naan postu Thiaroy voilà jóge postu Thiaroy nag dëkk si Pikine voilà kookoy Kumba Tamba commencé carrière am en 2005 2006. voilà di ci jóg daanu nag. waaye Kumba Tamba dañoo ñëw nga dellu cosaan dellu yamaam ya moomoon nee naa la ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ci boroom Kumba li nga def nii mooy lan waaw lii mooy cosaanu fulbe. xam ngeen euh, damay dégg olof yi ñu naan pël ñu yaakaar ne pël boo ne pël rek Guinée la déedéet ñun ñun ñëpp ay pël lañu. ñëpp ay pël lañu. waa dafa am ay race waaye bii nag race maasina la. maasina pëlu maasina waaw pëlu maasina dama dellu sama cosaan ndax man sama maam mu ngi fekk baax maasina waaw moo tax ma def cosaan bi wane sama bopp waaw wane sama cosaanu maam dëgg neexut <laughs> ayca mbokki internet yi ñuy seetaan jamono ji ci sunu TV yéen a déggandoo Kumba fa mu fekk baax riche na lool macha allah chapala. waaw macha allah rien à man ni mu soloo sax dafa ma neex ah, ndax dara neexul nga dem def sa cosaan. ndax comme ni nga ko waxee sànq rek ko wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom ne déjj toog te du la may dara mm-hmm. macha allah ni nga ko doxalee ni daal kontaan naa bég naa daal yaram daal daw na yaram daw na lool lool sax mais Kumba ma bëgg laa laaj dara naka ngay dundee musique bi ak euh, famille bi noo ko dundee daal ak ci koñ beeg say nit say am di jàmm noo ko dundee. waaw ni ma ko dundee yomb na ni ma ko dundee yomb na ndax dama ñëw wane li ma bëgg. waa kër gi fekk si ma ci. tamit di leen déranger loolu waaye di dellu ci ñoom di leen balu loolu ndax ku nekk xam na musique chaque jour foo mun ci nekk da ngay déranger. di lay installé samay podium koñ bi toj artistes yëpp ñëw xam nga ñu fanaanoo yuuxu waaye su ma paree damay doxaat ba ci ñoom man leen baal leen maax maa ngi leen di déranger ak bruit bi ak ñëpp mais dañ may naan amul benn problème ñun bu doon suñu sago la chaque année da koy def borom kalabaas yi. ma nekk sama néeg di sàlleeru foo tollu dégg sama baat su paree ma ñëwaat ba ci waa kër gi ma ne baal leen ma àq waaye xam ngeen liggéey bi ak bruit bi ñoo bokk te ñu comprendre ma loolu nag ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen gërëm bu baax ñu ñàkk ki ñaan lañu ñu neex a dëkkal lañu macha allah. ñoo ko déggandoo ah moom day def lu muy def ba pare tourné waat nank balu àq ndax balu àq dafa am solo du sax tabaski ak korite la ñuy fa di di balu àq ndax doomu aadama dafa war di balu àq tout le temps comme moom nu mu koy defee kontaan nañ ci yow bëgg nañ ci yow. ndax nee naa leen ku ne Kumba Tamba rek xam ne moo sookee koo Tambacounda fekk baax Pikine waaye fekk baax fi nga xam ne moo di fekk postu caaro yi jamono ji ñu ngi fi nga xam ne moo di tali bu mag kon yéen mbokk internet yi yéen xal halpulaar mi yéen mbokki pël fuutaam yi seen doom a ngi nii seen doom ji ngeen am ci diaspora baa ngi ni seen doom ji ngeen am ci senegal war ngeen këpp a ngi nii mu di Kumba Tamba la voix d'or man yow laa lay loolu laa lay dippee la voix waaye tey Kumba bu ñu buggoon xam tey Kumba Tamba kañ la dugg ci way ak naka la ko way bi feeñoo ba mu ñu rek nii nii nii rek Kumba Tamba di way. waaw euh, DJ loolu dina ma neex trop trop trop pour ma wax ci aussi dinaa sawar bu baax ndax man doonu ma wéy fekkuma sama benn famille di way mais macha allah dama bëggoon musique Papa Thione ma koy pratiquer nag bu baax di ko wéyantu nag bu baax nag waaw yàlla def nag. ma tase sa benn xarit bu ñu naan Awa Cheikh nee naa ko jongu demba nuyu naa ko bu baax ndax moo ma tey boo gisee ma woy tey moo ma ba ma mën a woy premier jour bi ma ñëwee mu fekk ma benn waa ji ñëw suñu kër mooy euh, ñiy yore xalam fekk mu may fóot di woy mu pare ba muy ñibbi mu woo sama mag ba mu ñëw te loxo mu ne ko damaa bëgg sa raq bi nga yóbbu ko mu dem woy après sama sama mag ñëw ba ci man mu ne xam nga dégg nga kii lu wax ma ne ko ah mu ne dafa ne da nga war a da nga war a wéy na dem wéy ma ne ko man ma woy man doon ma woy fekkuma sama benn famille di woy nga bëgg ma woy ñu off foofu lañu pare ci wax jooju waxaatuñu wax jooju. kumba bi daal fa nga toog di fóot fa waaw <laughs> ah waaw bu baax sax. ah jeeg ci këram. waaw xam nga waaw après awa ñëw awa Cheikh mu ne ma nag à partir aujourd'hui kumba da ngay woy mhm. ma ne ko mu ne ma mu ne da ngay woy benn jour mu jàpp sama loxo ànd ak man benn centre culturel bu nekk Tamba ñu dem fekk fa benn femme bu ñu naan ma dem Sall mu ne kii woy rek lay def te damaa bëgg mu wëy kooku ne ma wëyal ma ne der ma woy am na benn femme bi nekkoon ci wetam kooku di jooy mu ne waaw kii lu muy jooy après mu ne ma may génn bu may génn mu ne ma li ngay wëy sa baat macha allah ma ne ko du tax ma woy de morom baat ko génn dem ma dem nag ni boole ma keneen aussi ku tudd Meng kooku nag moo tax ma woy ndax kooku moo daan indi ay sabaram ba ci biir kër gi mu naan ma fal force da ngay woy nii laa commencé woy en 2005 2006 laa dugg sama carrière inspiré ci morceau yu euh, suñu mag yi fi nekk suñu papa yi fi nekk di ci woy nag loolu nag mais en 2005 2006 laa commencé carrément dugg ci milieu sobis macha allah. mbokk internet yi en 2005 2006 la Koumba Tamba mi dugg ci way laf cat te yàlla na jëm kanam. foo ñuy dégg it artistes yu mag yi yàlla nañ la fa dégg foo ñuy dégg say mbokk alpulaar yàlla nañ la fa dégg ndax nee naa la ku teg sa ànd am na doom am na xal waaye waaye def sa cuuraay miy jar jari ma xool yow fan ngay jëm ak moom tey. comme ni nga ko waxee rek euh, yéen a ngi suivre seen émission euh, salon des VIP yi macha allah ñu nekk fii tey ci pikin tali bu mag dalal ndaanaan kulli fadri di Kumba Tamba ku ma bëggoon a xam ndax am nga jëkkër wala amoo jëkkër. <laughs> Adja gars yi dañoo tàppet waaw bien sûr gars yi dañoo tàppet <laughs> ah suñu mbokku internet yi dégg ngeen Coumba Tamba nee na góor ñi dañoo ragal Coumba Tamba waaw Coumba lu ne ci yow bañ lay ragal sax. xam nga macha allah xale bi dafa jongoma. waaw loolu la gars yi dañoo ragal. xam nga am na nooy jongomaa rek gars yi dañuy ragal te góor ñi léegi yàlla na ma yàlla baal dañoo amatul fit seen fit a dox. <laughs> ah déedéet Adja ah, bul dugg ci loolu. Hmm. ah taaru jigéen sëy nag. ah am ah, mais ba ci la. ba duñ ko song. ah, ah dëgg neexut. ba duñ ko song. Hmm. ah mais nañ ma song. Eh, non xoolal dégg nañ ko mais man loolu man mënu ko gëm. Hmm. au fond de moi ndax Kumba est nekkul yow yaay dàkke ndax Kumba nu mu jongomaa nii tamit ah macha allah gën a jong ma mën a woy ba dee bu yuuxoo rek sa xol daal di féex ku ma yaay dàkk di jéem tamit nag ah. lii foog ñu xoolaat ko. foog ñu xoolaat ko ndax waa diaspora bi ñu ngi seetaan sa mbokk Haalpulaar yaa ngi lay seetaan jamono ji Kumba Kumba est du ci yow du ci yow de kon ñoo ko déggandoo Kumba nee na dàqul kenn xale góor yee karagal ndax nee na góor ñi sax takkatuñ léegi hmm? kon boog daw si leen ngeen wari Kumba. ndax nee naa leen ku woy fekk ci sa paanu fóot ah. kooku mën na yorub kër ndaanaan rek lay doon ay ca suñu mbokk internet yi tey gan gu riche gaa ngi nii mu di Kumba Tamba ñu fekk si woon ko fi nga xam ne moo piccin Pikine tali bu mag ndax nee naa leen ndaanaan des di ànd ak i ndaanaan xam nga na laay def dee def aja nu may daal di xam nga mooy naan dal di bàyyi Kumba nànk mu daagu nànk yëkkati boppam nànk comme nee na jongoma la faaj mu wane boppam ca lëm wane boppam ca na yuuxu wane boppam it ca la nga xam ne moom lañ ko baaxee di waxee mu di Kumba la voix d'or Kumba laf cat ah ba tax na kon mi ngoog dañuy daal di ànd Kumba Tamba ci sunu TV waaye gannaaw loolu bëgg naa lii ngeen jàpp ko te dégg ko mooy daw leen gaaw ngeen abonné ji sunu TV nekk ci internet bi bu ngeen ko abonné kat di ngeen seetaan Kumba Tamba mi ndaanaan ku li fadili kon ma bàyyi réalisateur yi ñu daal di ànd ñoom ci programme bi rek daal di ñëwaat léegi lay daal di doon. Eh. Ajá. Ajá. Bimi jododoon gonda koy fije bimi jododoon an gonda koy fije mbimi joɗoɗon an gonɗa koye fijje mbimi yaadiɓe ma e sehlaɓe ma koye calaki sehlaɓe ma e adiɓe ma ɓen koye calaki mbimi jooɗo ɗon an gonɗa koye mbimi a jooɗo ɗon an gonɗa koye fijje nen ma wi yaare soyi bande ɓamma wi a ɗaccam an yaare soyi bande o jooɗo ɗon an gonɗa koye fijje sikuɗa mi anda an ko gonɗa e dow mum an jooɗoɗon an gonɗa koye fijee sehilaɓe ma e yaadiɓe ma koye calaki bimmi yaadiɓe ma e sehilaɓe ma ɓen koye calaki kono haawi kam ko jinnaɓe ma mbiyen potani resondirde sabu en gona fasiraɓe kunoomi noon ci kunoomi noon ko puntingala hakkunde meeɗen yiɗɓe kumba gay tamba ko gilli koye goni hakkunde meɗen yiɗɓe kumba gay tamba rugi diallo rugi diallo tamba salminama hajambo mi salminima somo suñu tv mi salminima seydi sow pullo jeerinma ɓe mbi ko sow ko pullo kono ja ko pullo ka ko pullo kono jallo koy ko pullo kono kay sow ko pullo walla ko laabo hey DJ Ama suñu caméraman bi nuyu naa la Ama mi Ama pulaar mo nanaaɗi pullo kono min mi salminima aja mo sañ falo aja wonala aja wonala aja kay wallahi mi salminimon mi salminimon mama sow mi salminima ma sow pullo jeerima mama sow mi salminima mi wi sow pullo jeerima seydi sow mi salminima yiɓɓe kumba gay tamba salminama daali diallo mi salminima mi wima min yiɗimon min yiɗimon wonon gase ɓerdam mi salminimon suñu tv koy hande xoolal nii ma meen bismillah maaye galle maada do suñu tv uwe aswonala <laughs> uwe dige aswonala aso as as as as min mi salminima as mi wi jam hiirey maada mbar koy ko jam hiirey maɗa asoy mi salminima mbimi asne xulenam asne xulenam saf na xaley saf na mag ñi saf na xaley saf na mag ñi